tey fay la. en plus de ça dama am rendez-vous. je pense que léegi mu ñëw. d'accord maa ngi dem toog fay. allez-y d'accord fay laa bi maa ngi koy xaar. ëpp na <laughs> allez-y maa ngi. à tout à l'heure allez à tout à l'heure d'accord au revoir. allez. amore? Eh, eh. ah laa ilaaha illallah daal xam naa ni daal. eh amoore nag dafay amoore nag dafa yàlla. waa ah waa. amoore loolu espagnol yoo koy waa léegi léegi bëggoo ma bëggoo ma. ah déedéet changé tur. loo bëgg amoore dégg naa ku ñaaw gi di ko wax ci ginnaaw. kooku la ah. amoore lay wax de. léegi loo bëgg yow. seetal beneen tur bu la neex waaye. waaw doo waxaat. déedéet am nga amoo dafa yàgg. bébé dafa yàgg papa dafa yàgg. yooyu yëpp dafa yàgg. bébé moom doon ko xal yi sax kenn. joli kër déggal lii neexiree. Thiam. <laughs> lii daal nga bëgg ñu def. waaw. nii féexlu féexlu bu baax. néeg bi dafa baax di moom dañ nekk ci biir néeg bi rek da nga bëgg néeg nag. ëtt bi day neex. waaw confirmation bi boo mënee nekk sa sa kër. dara du la sonal. nii dajaa baax sax lu dugg ca. waaye confinement bi pare joli kër ñi ma jaaxal mooy ñi nga xamante ni ñu ngi ci kër yi war a fay weer weer bi jot nii dee. ah waaw comme kat may nañu kuy nu mu tudd courant ndox kat li ci des xanaa mën nga koo fayal sa waaye nag joli kër. am na ñoo xamante ni seen dafa metti léegi bu ñu fay weeru weeru weer bi dee ñu war a fay war a génne dund imagine sa salaire nekk 100000. dund moom kenn génnee du ko ci réew mi am na maire yoo xamante ni moom li ñuy def. moom dañ leen di féliciter rek man damaa am sama xel sax dafa dëkk ci dëkk fii bar xale bi dëkk jaas Barthélemy Dias. waaw Barthélemy Dias. ah waaw gisoo li mu def. loolu la maire war a def joxe ba joxe nen <laughs> joxe ba joxe néeg rek. dafa joxe ba joxe nen waaye am na maire yoo xamante ni saabu sax joxuñu ko seeni commune. chez Mal Communication Rouge. Alors, qu'est-ce que vous prenez Jus d'orange comme d'habitude. D'accord. Et toi Non, écoute. Euh, Jus d'orange comme d'habitude. Merci. Mhm. Et qu'on a changé un peu tout, tu m'avais dit que. Donc, management la communication. Management communication. Ça, c'est mon domaine là. Événementiel, quoi. Événementiel. Voilà. Ça m'arrange parce que de me prévoir en quelques projets avec Maï. Ok. Mais comme que là, on est en froid, mënuma ko def ak moom donc du coup au muy nekk man dama bëgg def ko yow ak mbay non mais loolu du doon problème parce que moom il est il est très connu dans la milieu. Voilà. déjà loolu noonu c'est son domaine. Oui. donc il sera facile que man bu ma ñëwee tegal ko le projet moom dina ko mën a gobee facilement quoi du métti. moo taxoon ma woo la léegi ñu xool comment on va faire euh, ma financer projet bi sans pour autant que moom mu xam que je suis dedans parce que xam naa ko. il va pas accepter su xamee ni man maa financé projet bi. et que am naa ko loolu ko gérer. donc loolu moom moo tax nag léegi moom. je vais essayer de le voir convaincre ko proposer ko le business. man j'en suis sûr que ni dina dina accepter loolu moom. su ko defee. on va essayer de faire benn business plan comme ni ko doon waxee. et tout ce qui va avec ma jox la ko étudier projet bi en même temps. di ma jox sa numéro compte comme ça ma virer la xaalis sa ah, compte. loolu loolu di à dire nañ bàyyi ba toll ci étape boobu noonu parce que pour le moment nii le but c' est d' aller voir Mbaye. de le convaincre par rapport ak puissance bi. s' il est accord après man je vais te revenir. avec euh, des documents en main. bu defee léegi lépp lu ñuy soxla par rapport ak budget par rapport ak visibilité communication beeg yooyu noonu après ma je vais te dire yow nga dressé benn budget boo xam ne moom mooy dem pour loolu noonu. saabu saabu bu nit ñi raxasoo nii joxuñu ko te bëri wax. waaw mais loolu maire yi ñoo ko war a joxe wala chef de quartier. maire balaa muy chef de quartier ji joxe chef de quartier lu mu am. de chef de quartier dama yaakaar ne affaire bi ñu bi nga xamante ne. ministère li di jox population bokkul ak li gouvernement bi war a joxe. Ah. maire bi nga xam mooy fanaan ak population bi chaque jour lu xew ma nga ca. kookoo war a njëkk def balaa gouvernement bay def. du dëgg waaye maire yoo xam dem dëj ak tour de famille rek. lan la ñuy jëriñ ca ba. Ah. am na <laughs> ah, ma wax turu maire ba. boo bëggee kay. déglu nga xam nga lay bañ ñu confinement la ca prison ba. dara lay de famille dem dëj képp lan mënoon waa population mënuñu leen dara. te yore budget. nanu génn xaalis bi jox ko population balaa nguur gee ñëw. est-ce que xam nga ni maire li war maire wàccul borom kër. waaye déedéet fi mu toll nii borom kër yi lépp da leen wàcc. ndax mm. dañoo dañu toog leen seeni kër ndax feebar bi du dëgg. Mm. kon kan ca dëkk ba nekkal fa nguur ga balaa nguur gi def dooleem yow war ngaa def li nga mën. waaw yow li nga def nag nii nii nii nii ñu génn ca maire ga yow gengoo xana jeng jéng ah, yow boobu ba tey yaa ngi fii di daf la ko confirmer kon yow jeng nga ko jàppe nii jeng la hmm. waaw jeng la yow fi mu nekk nii dematoo fenn woote téléphone sax defatoo ko yow kon da ngay jaawale amour profondeur ak geng hmm. yow tooguma fii nga ne ma ñaari weer nga fi def waaw loolu laa bëgg waaw léegi kon jeng bi war naa jeex tey bu ma jógee defar samay bagage <laughs> ah, kon xam nga ni góor bu geng baaxul góor bu fekk dafa jéng ni moo ko tey baaxul. bu ko tayul ah bu ko tayul nag moom moom baax na <laughs> waaw góor bu jéng moom baaxul. xam nga mhm. jéng fi muy gën a fese. am na ñoo xamante ni sax ca biir kër ga la nii ne wane seen jéng ba keneen ko du fa xeej day mujj dem. dëgg la wala nga aaye ci kee kii nekk di di xaskale naan kële bu daraam baaxul du setal du nàngam ah xas kooku ba mu ràpp après nga aaye ci beneen ki ko jigéen ki nga xasaat kooku ba mu ràpp. waaw léegi lan moo tax jigéen ñi mën ñoo def coalition sëy bu fekkee ñaari jigéen dañoo nekk ci kër di xuloo di xeex xas daf fay am waaye ñaari jigéen bu ñu xuloo bu fekkee ñu ngi ci biir kër te juboo hmm. bu seen jëkkër jéngee ñoom ñoo koy tegal ci palaasam ce que xam nga ni xuloo ñaari jigéen ñaari jigéen yu bokk jëkkër ci jëkkër ji la ah, moom laa la wax ndax su amee ful la dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nekk responsable xam nga góoru irresponsable weesu wut hmm. nga aye ci kenn nga xas ko demaat ci keneen nga xas ko kooku mooy irresponsable Voilà. Tu comprends loolu moo gën a moo gën a baax. Ah, dina naaj. te bu ñu paree ci business bi après ñu song xam nga rek. ñu ñaax ah, en même temps chérie. oui c'est jugee ci étape bu business bi. Mhm. pour nga bañ a mélanger les deux rek quoi. faire de lui un compte tu mooy lu ma wax rek tes intentions quoi. et que voilà tu aussi à l'avouer xam nga li nga xamante ne nii moo nekkoon sa vie d'avant quoi. Hmm? xam naa tu es trop busy instant yi nii. tu vois je faire. Ouais, de dem ni saale sama jabar Marina léegi mbay en même temps. ça se passe bien entre vous. fa ndànk rek quoi. comprendre nga boo yoree ñaari jeeg da nga leen di yamale nit bu nekkee ci biir këram day yamale ay jabaram. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. Mm-hmm. waaye foo féete rek ñu ne la foofu la baax. Ah, waaye am na jigéen ñoo xam nag lu leen wax baax na ndax dañuy topp émotion wujju ba ba du defaru xam na ñoo xam boo leen takkalee wujju rek seen émission émotion la ni wax a. Ah. Ah. yéeg na dootuñu sangu dootuñu di mer rek. bu ko defee nag bu fekkee kee tamit ay affaire baax na tamit du jàng nag loolu nag wax dëgg yaa bakkan jàmm la bëgg nag a ah, jabar ah, nga tagg sa jabar loolu mooy noobulu góor da même sa jabar bu baaxul danga koy tagg parce que yow yaa ko seppi woon ci jigéen ñëpp nga takk ko mu nekk sa aawo nga takk ñaareel man damay wax pour man de parce que ëllëg mën ngaa takk beneen ñetteel mm-hmm. de euh, peut-être mën ngaa géng ci côté am wax ko lu la neex te fekk na maa ngi def sama kemtalaay kàttan mm-hmm. fii mu nekk nii tooguma lekk ma ba mu doy ndax bëgg lu la neex di def ah. sa bànneex seeti gaaruwaale ngay def daal pour après prévenir ma pour ma takk ñetteel non damay bañ ah déedéet bàyyi gaaruwaale waaye def tamit bàyyi xam naa la man ngay waxal <laughs> ah, waaw man ngay waxal <laughs> <laughs> man ngay sànniwaale xeer waaye loolu nekkul sama xel nekkul sama xel jigéen daal boo nekkee ci kër ñu indi la fa yéen ñaar ña fa ne da ngeen di def coalition waaye bu ngeen defee nuñ koy waxe tasaaroo nii mhm. góor gi lu ko neex lay wax mm. waaye bu fekkee yi ñaar da ngeen juboo góor ga gis ni du ngeen juboo boo mosee nettali benn yoon mu gis ni nettal nga ko aram njaay du mm. ñaar waaye xam nga ni juboo boobu arrangé wu la mm. juboo ñaari jeeg ci kër arrangé wul góor lu leer laa lay wax <laughs> yàlla sax daf ma suturaal dama ñaari jigéen bokkuñu fu nu dëkk lan bokku fu ngeen dëkk man du ma fi yàgg de ah da dem ca damay buub samay bagage sëy yi foo ne dinaa toog fii yow ngay ñëw di fa fekk fii à tout moment bu yeboo nga def ko sa xel. da ngay sëy ca kër man ragaluma loolu damay bokk ak jëkkër wala da ngaa ragal ma. Ah, waaye xam nga kër ga dafa xat. kër hmm. xam ne ñaari néeg ak la benn saal boo fa sëy sëy fooy fanal. ga ca beneen néeg ba. waaw yow tam la yaa ngi fii. Hmm. kenn moomu ko yaa moom. da ngay daw responsable loolu bu xamante mel ni seku. da ngay daw responsable déedéet du affaire xam nga kee xam nga ko hmm. moom jukko salon la yor. dégg naa nag ak a gàtt. gàtt de baax na waaye gàtt ba tey li bisat baa ji. waaye <laughs> ah, noo ma gisee. Ah. gàtt saf yaa ji du ko weccee njool mu tooy. maa la wax lu mel ni. man gàtt naa waaye waaye ah, tam bàyyi ma waaye tam. xam nga ni bu amoon njool mu bu amoon bu fekkoon gàttaan yëpp di mën la nu mel du baax <laughs> xam nga li ma la wax. jàppale ko yow. kii kan la quinze quinze wuy ma wool quinze quinze nu talul nu luy de kii kan la lu ko jot quinze quinze bu laal bu bu bu ko laal waaye yow tamit da nga bopp nag waaye boo ko laalee ba noppi rek bul agsi da ngeen di dox rek feebar bi nee nañ leen day wàll toog leen ngeen lànk kaare restez chez vous restez chez vous lu ngeen di war a bay wàccu wutaaleen saabu boobu ndox raxas waaye bu bul ni ma nii waaye feebar dafa bëri waaye tooy ah wala 15 15 nga bañ nga laal léegi nag na nga dikk bu sa tànk di ko carax carax mel carax lan la eh xool ma lan la maa la de wax ma lan la lan la lan moo la dal nag maa wóoluwul ci wax ak man lan mooy sa problème loo xamante ne du lu mu bëggoon du lu mu foge woon te nu ma la ko doon waxee moo taxoon mu choisiroon rester muette pour ne plus parler parce que tiis na moom trop sax ndax yow yaa ma dalal si kër gi je voulais te rendre la monnaie de ta mais. li ngay waaj a wax baaxul de waxal lan moo la dal ki ne lan moo la dal nga nekk ci kër gi di wàccu lu ne nga def ko lan moo la dal ki ça va bien. naka gàlle bi. yow comme eh, gisoo ni yow maanaam bu yàggee da ngay ñàkk fayda parce que yow tout le temps yaa ngi ñëw ci gàlle bi di dugg di génn gàlle bi am ay càmbar càmbar lambar lambar chaque jour góor di fi dugg jigéen di fi dugg kër gi dem ba nduru le bordel quoi yow. xam nga pourquoi gros mots tamit. non non mais non mais. tamit sax ay. Marina ay bordel ak ma non la déglu yow. yow du ma la déglu. da nga sa waay yow la déglu de. foog nga déglu yow yaa may déglu tey yow chaque jour yow lañ sa sa kaye. xam nga ñëw gis Marina toog ci salle bi expliqué. def ay tay nag spécialement. non non non non mais déedéet yow laa soxla yow. mais saa yi léegi non dama bëgg ñu waxtaan tranquillement kay ne ndànk rek wàccee ko balaa tey. mari laa nga seet si wala man nga seet si yow yow laa yittewoo tey dama bëgg ñu waxtaan ñëw ñu toog waxtaan tey foog ñu jokkoo ok. léegi naa wax rek nga ma sa waay danga la nga ne dangaa am bu ah? yow kan bi yow danga maa yëpp man xamut sax xaw ma sax lu lay wax yow danga maa yëpp wala danga maa miin ah Kiné du loolu moo taxoon fan yii yëpp su may wax ak yow doo faale kenn du wax ak yow ci kër gi ba nga ubbi sa gémmiñ gi wax nakate def nga minjoom mi kan toog ni miix ak moom di ma wax foo ëmbee ak ku la ëmbal. ngoone xelu mag la ma jaay wër ma sama xel mi la lekk je m'y attendais pas di woon dina ma dal en tant que man intellectuel bu doon na man. intellectuel. jàng moom fi indiwoon. yàq na sama àddina nekk si jàmm kan la kan moo la ëmbal doo xale ah magum jëmm nga bi nga ko doon def yaa tey ni lii mën na la cee fekk kan moo la ëmbal bala may ñëw ci yow eh di ma wax kan moo la ëmbal kan moo la war a ëmbal yow ki ne léegi xam nga xam nga xam nga euh, ça fait peut-être quelque temps nii xam nga ñu ngi daje ci gàll bi. Mhm. tu vois te man gis naa ne que voilà yow yow star médiatique nga. Mhm. gars yi xam nga ñu ngi kiife li ngay li ngay def souvent. léegi nag comme domaine boobu nga nekk man aussi dama nekk ci domaine boobu maanaam c'est parallèle parce que man management et communication événementielle laay def. Mhm. donc du coup dafa am euh, ay projet business yoo xam dañu nekk sama bopp te xam naa ni. yow am nga profil adéquat par rapport ak loolu noonu nga xam ne man bëgg naa ko. Mhm. moo taxoon ma bëggoon tey ñu waxtaan fi maa ngi samay document mhm. maa ngi comprendre voilà lii su nekkoon su nekkoon teel naa xam lii. donc problème du am. doo ko mën xam parce que problème doxaan ñëw rek nga bëgg ma songu def noonu. waaw bu nekkee ci cadre job la moom. non dañuy business loolu moom bul bul jaaxle ko projet bu solide laa la indil fi mu toll nii. jeex na avec ça mën nañu nekk ay gaayeen je te présente xam nga le projet. ay xam nga si ça t'intéresse après ñu xool nan lañ koy démarrer parce que bëgg nga yow nga diriger ko gérer ko à la clé. xam naa ne quoi. bon projet bi ça dama bëgg yow soxla naa sa avis tam par rapport projet bi mm-hmm. mais euh, en résumé ça dama bëgg ñu ubbi benn boîte boo xamante ni nii euh, comme yow ci milieu bi nga nekk xam nga ci vas pas former sax. mais recruter et orienter xam nga beaucoup de jeunes filles par rapport ak métier d'animateur bi ñu nekk ok comprendre nga c'est intéressant waa te loolu comme yaa ngi ciy def liggéey boo xam ne boobu léegi ay ati at kenn mësul a dégg ci ay détails wala ci ay délire donc yow sa profil day baax pour nga mën gérer loolu noonu. yeah yeah di am crédibilité par rapport à ça quoi. yeah dinaa ci parce que da nga ma fekk si sama domaine. Ah. donc da nga fekk loo xam ne maa ngi doon toog di imaginer amoon naa xalaat bi. Mhm. Euh, lépp expérience bi lépp mi ngi fi. Mhm. mais maanaam maanaam lu ko téye. fond bi bi loolu doon problème nag. cest à li jëm ci budget beeg liy doxal projet bi yow loolu bu ci jaaxle. soo wax ma kan mu lombal. dara du kan moo la ëmbal eh, Kine. Ibou kan Ibou Ndim mi ci kër gi moo la ëmbal. eh ndaw Samba. Ibu dia melambal yow yow kon yow yaa ngi woon ci sàll bi maa ngi ci biir wax su la ne góor ki lu ko dal kii de boppam mooy métti moom day feebar rek xiiboon na daa xiiboon yaa ngi ko dafa xiiboon waa ah ni nga def c'est ça ah, alaa ngi ci bitti foo ci biir la <laughs> laa dama pare kawe eh, ma pep pep pep pep may xool yow yaay ñàkk jom ñàkk fayda yow daal man li ma soxla mooy yow fexeel ba déxule xam nga ak sa carnet d'adresse bi nga yore mhm. ak sa crédibilité par rapport ak euh, métier bi métier bi mhm. tu vois mhm. ah léegi boo yi nga xamante ni bi nii gel yi je veux dire xam nga toutes les plus belles filles nag de Dakar ñu recruter leen sa à dire pourquoi pas dem ba waaw nga war a mën a xalaat teg sa benn propre boîte boo xam ne télévision lay doon. ak waaw loolu yëpp nag step by step mais nii nii ci moment bii nii. parce que déjà commencé woon naa def yenn démarche yi. tu xam nga am na documents yu bëri yoo xamante ne bi nii. xam nga mun naa ni ñu ngi ci. léegi nag li des si yeneen documents yeeg yooyu xam naa ni semaine prochaine. Mhm. ak maa yow dañuy ànd dem. nga régler yenn papier yeeg affaire yi pour que mu nekk lu légal quoi parce que mënuñu nekk bu simple bu crédible. mais saa doon nit de. waaw mais man dama cee bokk. maanaam sama lanc. maanaam nga sàqami sa lanc yow. sama maanaam parce que lii dafa nekk loo xam ne xam nga kenn ku nekk en général da ngay des fois di yëngu ci benn affaire. dem ba maîtriser ko nii mais doo am ku la ci jàppale. yaa ngi dégg mën nga toog di xalaat ni lii nii maîtriser naa ko nii maanaam mooy sama lan ci nga saxe mooy fan yii yëpp maa ngi xalaat naan sama lii naka laa ko mën a exploiter parce que war naa ci a am lu baree bari comme ni nga waxee xale yi jigéen ñi nga xam ne dañuy ñëw ba dóor casting yi pourquoi commencé di ay programme commencé di kii n'empêche di nga ci defaale maanaam genre école lay doon effectivement moo sànq mën a former ou moins et encadrer mm-hmm. que comme parfois dañuy gis ci paysage audiovisuel yi yenn dérive yi te li koy indi souvent mooy manque de management bu baax xam nga se loolu noonu buñ ci accès ñun li ñuy liggéey c'est-à-dire dinañu génnee ay éléments yoo xamante ni tey fu ñu taxaw xam nga dinañu xam ne que ñii nii ils ont été bien formé quoi comprendre nga léegi nag li ci des moom mooy man nga jox ma sa kàddu parce que pour l'instant nii xam nga defaguñu dara sur document. mais li xaalis bari la laaj dafa tamit fi mu toll nii fii moom. wax dëgg yàlla non loolu grave man instant yii yow tu gères xam nga la direction. yow gérer lépp nga xam ne moom moo jëm ci direction bu affaire bi. léegi man je loolu du problème loolu c'est déjà calé. waaw c'est-à-dire def nañu nii yow sa accord nga may jox. tu après man je reviens demain. am ñu la financé ak bagage yooyu. non loolu du doon problème loolu c'est déjà calé. ah man kay am non yow kay sa garde-robe la ñuy changer tu vois nga nekk ci. bi ma la indi ci biir kër gi dama la fay indi pour ngay jàng ndekete yoo yaa di jox sa bopp Ibou Ndim joxuma ko sama bopp de moo ko jël. eh, eh yow Ibou Ndim dalaa forcé wala dalaa violé. daf maa nax. nax damaa fen. waa kii mais yow nit nga may wax nga wow bët bay bëgg a dee jàkkaarloog man damaa fen. waaw loolu fi mu toll nii man damaa jaxasoo li daf may gën a bëgg a xam naa circonstances yi yi ma nekk na tamit li ma def ampleur bi mu am léegi daal da ngaa bëgg ma jël li nga def yow ma nëpp nëppal ko ma dina raay raay pour lan da gis ma def ko fi dangaa gis yaa aw def ko fi jigéen ñi ci biir kër gi bari na da ngaa gis ñu def ko fi yow xale bu ndaw yow bi gën a ndaw ci jigéen ñi yow yaa ko def ci biir kër gi ak ki nekk ci kër gi ki nga xamante ni mbay moo ko fi indi. la moom moo ma ciblé xanaa Ibou Ndim xamoo ko seqal ak yow loolu bés boobu bu ma ko seqoon li nga xam ne Ibou Ndim lu bëgg. Kiné xam nga lan la duma ma sa morom te bu ma fontoo bu ma yab ñaari yoon duma la indi ci kër gi nga def fi mu bi kam ba pare bëgg maa raay ak Ibou Ndim seqoo ko ak yow yow la ko seqal yow la ko def et dangaa ñàkk fayda ba mu def la ko léegi nag léegi. ay man xale bii lii lan la. waa léegi man lan laay wax man mais soyons professionnels na quoi parce que lii xam nga structure bu bu kawe la et puis voilà. yow laa koy bëgg a wax tamit yow mën nga xam nga ni man am naa image bi peut-être xale yi jigéen ñi ñëw di jàng seeg yooyu yow bugguma tamit nga leen yuus ci suuf yow tamit. yuus ah, mooy la ah, xale yu jigéen moom sawaay yow. non mais yow man Marina lay jël yow xam nga loolu. sax ay kii la mais yéen ñëpp a mais de toute façon ba pare man ay cadre ndobanteeg yooyu man moom yooyu sama yoon nekku ci waaw ay parce que yow moom tu es tu es non non non non non non léegi man lii moom a gënal ay ay ay cadre mbëggeel ay am gel maanaam man liggéey mhm. su ma demee bay am jotu nekk di bëggante wala di créer ay di am ay gel di am ay problème ak yooyu c'est parce que dama am temps ok waaw damay xëy toog ci kër gi c'est-à-dire sama xel bi yëpp ci loolu lay nekk. looloo indi plus daf may indil ñàkk jom. pour que nga bañ a tal gel yi concentré wu si lii nii hmm. peut-être nag plus tard boo demee ba am benn assise tu es aisé. ma dem jabar. jeex na loolu man mën naa ko tax dox amul problème. léegi pas de guerre pas de ngay ñëw di ma wax ay waxi Marina ma lay wax ay waxu keneen ak keneen. donc si on man ak yow bu ñu toog non non man ak yow toogee di wax léegi ci liggéey lañu kii. Mm-hmm. man d' naa. ok am naa sa accord quoi. je bu la neexee nañ ko suba suba suba ñu commencé dem lijjanti papier yi. d' léegi man je te reviens de toute façon. waaw dinaa la woo yow boo ma déggul sax woo ma. t'inquiète tu m'appelles. dinaa la woo dinaa ma numéro déggoo li ma. mu jox la numéro baax la waaw loolu ci biir Cisco docteur Law. Cisco docteur Law waaw. yow ma déggul sax yow tu m'appelles. non amul problème yow boo ma woowee. baal ma bippe la yaa ngi sa kóor. baal ma bippe la. yow bu la daal sous silence sama sàkk. ah d'accord ok amul problème. léegi naa la. léegi man. waaw boo ma kóolee. waaw wala man ma woo la ça dépend. amul problème man je reviens. mën naa la woo ñu ànd dem xam nga rek. chambre de commerce régler yenn kii parce que foog ñoom ñu ne yaa registre de commerce kanam kanam détaillé yu ñu yëpp quoi. amul problème man maa ngi nii ci gàllankoor bi. moom xam naa du ma ko gis. non parce que xam nga rek instant yi moom. waaw bagage yi moo ko dool. mais tey moom xoolal. mooy mooy mooy père ki mooy jëkkëru ngóor hmm. man amuma occasion gis ko mais xam nga tey dama yàqamti maa loolu ah, ah de gis ngeen ñu mel ni ay xale de ñu koy dund de moo ñu loo loobu xale lañ doyee ay docteur looba waaw yee yaay looba bonjour eh, bonjour ci la nekk ça maa la raw ko maa ngi nii rek c'est Aïda xamante woon c'est